Ansar TV gaaw leen bi su ko defee ngeen doon membre abonné di am en temps réel les événements. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di jiital nuyoo boobee ak ziar boobee sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifatul am ak sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbàkke xalifa sëriñ Mouhamadul Moustapha xalifa ak sëriñ Abdourahmane Mbàkke xalifa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma ak sëriñ Cheikh Bombali Mbàkke xalifa Cheikh Sëriñ Madina ak Cheikh Moussa Mohamed Mbacke xalifa sëriñ Mbacke soxna loo ñu ngi leen di nuyu bu baax ci kilifteefam di boo leen gisee jotaay bii nag ak kilifa yi toog nga xam ne ñii ñooy ñi nga xam ne seeni maam ñoo àndoon ak sëriñ Touba ak Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak sëriñ ak sëriñ Mbacke ba sëriñ Moustapha Mohamed mii ñuy jottali jotaay boo xam ne mooy màggal gi ñuy waajal di Ashura al nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadoul Moustapha woon sëriñ bi indi ko Touba. di nuyu bu baax di leen ziyaare ñi nga xam ne ñoo fi war a jottali ay kàddu jëm ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal sëriñ bi muy sëriñ Hassan Gueye di wax ci turu sëriñ Ndiaye Gueye ak sëriñ Massamba Ndiaye di wax ci wàllu culture ak sëriñ Modou Amar di wax ci wàllu bernde yeeg teraanga yeeg yépp ak sëriñ Moustapha Dieng général sëriñ Thierno Kayre jotale euh, kàddu yépp ñaanal mbooloo mi. jataay bi nag bis bu mag bu nekk ci suñu kanam. moko sabab moy bis bi nga xamne ne bisub serigne Touba bi ko gënalon ci bis yépp xadan na ñaan ne wajal khaira ayami yawma alqaaka fihi dan na ñaan suñ borom subhanahu wa taala nan ko na nga ma may bis bi gën ci sama bis yi na doon bis ba may daje ak yow muy bisub ashruna muharram muy bis bobu nga xamne ne ci la tanon dekkale ak suñu borom subhanahu wa taala ni diko wote fi ci Touba darul qudus ca ndigalul cheikh Mouhamadul Moustapha awalu yi ridwanullahi taala alayhim ajmain ñu jom ci bis boo xam ne nag mooy centenaire bi muy tolloog ab xarnu ca ginnaaw bi mu tëddee ci suufas Tuuba ak tey jii muy màggal goo xam ne nag màggal gu rëy rëy rëy la ñu fas yéene yëkkati sunu kàddu ci kàddu jëwriñ Serigne Ndiaye Guèye mi nga xam ne moom la bàyyi sëriñ Mbacke Guèye ridwanullahi taala alayhi tegoon liggéey bi ci loxoom mu ànd ko ak mbokki bi yëpp kon Serigne Ndiaye Gueye jëriñ mu ngi sant mbokki taalibe yi nga xam ne ak cheikh si nga xam ne ñoom la sëriñ bi boole woon ak moom ñu ànd di liggéeyal Baye sëriñ Mbacke géey ci ginnaaw Cheikh Moustapha Mbacke Mouhamad di leen sant cant gu rëy ci liggéey bi fa ñu ko yóbbu ci liggéey liggéeyu Baye sëriñ Mbacke géey ci yaatal gi ak jotale gi ak matale gi ak rafetal gi Serigne Ndiaye Gueye nee na sant na leen bu baax a baax a baax. tey jii la Cheikh Moustapha Mbacke Mouhamad waxoon ci alxaaji sëriñ Mbacke Gueye Ngathie ku mu sant sant naa la ku mu gërëm gërëm naa la ku ko waaye jëfal jëfal nga ma ko tey jii sëriñ Ndiaye Gueye mu ngi dalal seen xel ci ne ànd nañu làq ngërëmal Baye sëriñ Mbacke Gueye Ngathie ànd nañu làq ngërëmal Cheikh Moustapha Mouhamad te loolee rek moo doon ak bëggam moo doonoon yéeneem kon liggéey bi bu yegsee fii sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di ko seere itam ci kanam àdduna bépp Euh, lii des ci sunu kanam muy na asruna xaram te sëriñ bi am ci ndigal waaye itam am ci beneen taxawaay bu mu ci fas yéene taxaw ci yaatal ak soññee sëriñ jaay Guèye na fu waaye nekkoon na nga feddali sa laxasaay mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom di liggéeyal baay sëriñ Mbacke Guèye na kenn ku nekk feddali sa laxasaay te loo defoon na ko ful fulaat ko ngir ñu yëwénal bis bii ni ko sëriñ bi bëggee ndax bis la bopp kenn du ci feñ dootul deetul na deeti bu ba mukk ci adina ndax Cheikh Moustapha waxon na ne kat bis boobu kep ko xamne yor nga adde jëm ci man bo gisee kuy ku bëgg a ñëw te amul lu ko yóbbu na ko jox adde jojé ndax bis boobee roo yi ci pench mi rek mom lañ ci bëgg ndax ku fi fanaan defaru kon nak sëriñ bi mu ngi soñ ñëpp ci bis boobu cheikh yi jëwriñ yi fu ñu mën a nekk rek sëriñ bi nee nañu feddli suñuy laxasaay fédli suñu pas-pas ful sunuy jëf ngir sëriñ bi amuk bëggam ci bis bi kon ñu ngi ciy woo ñëpp di ci soññ ñëpp wa axiru dawaanaan alhamdulilahi rabbil alamina di yëkkati ci kàddu ci ndigalul sëriñ Ndiaye Guèye mu wax ne mi ngi soññ liggéey bi liggéey bi nga xam ne moom la bàyyi sëriñ jiite woon te ñu toll ci di wéyal màggal gi e, sunu soññ nag fi ñu koy jëmale mooy fi nga xam ne ci fànn googu la ñu féetee alxuraanu karim yi nga xam ne sëriñ bi santaane ko na ko lool ci bis bi ak xasida yi ak mboolem lu ci aju sëriñ wax ne mi ngi soññ mboolem ab naa usiyox bépp mboolem kuy doomi cheikh foo ma nekk te yaakaar cheikh Mouhamadou Moustapha mi ngi lay soñ ci foo mën nekk loo daan def ci lu jëm ci alxuraan ak xasida ak la ci aju loo mën ci dolliku nga def ko ndax gis nañ soññ bu réy bi nga xam ne cheikh Mouhamadou Mountakha ayadahu llahu wa nasra def na ko reen jii mu jëm ci centenaire bi nga xam ne mooy bi sëriñ bi ñëwee fii ci Touba ak ren di téeméeri at kon Cheikh Moustapha dafa wax ne mbooleem ku ko yaakaar fépp foo nekk bépp yëngu bu ci daan def na nga ko def ba def ci lu ëpp la nga daan def kon sëriñ nee na mi ngi soññ ñëpp xam nañ ne tàmbali nañ liggéey bi démb tàmbali nañ njàng mi itam démb euh, daa daara yi ñu ngi fi waaye ñu ngi soñ mboolem ko yor daara te nekk ci ab na si yoo foo mën a nekk donte benn kaamil la wala ñaar sax saa boo xëyee nañ ko jàng sa daara te ñoo andi lim fii ci kër gi jébal ko bi. Eh, kaddu gi ñuy jël nak dañ koy jël ci turu mbolam kilifa yi nga hamni ne ñoo ŋànk al qadim am naa usuyoo ñuy fàttali ne rek bis bi nga xam mo nek suñu kanam di bisub magal ashirun muharram ak aljuma le 26 juillet muy bis bo xamni amul benn bis bu toll ni mom ci ñun bis la bo xamni ni ummatul islam ñepp ko mom waye rawati ci nak ñi nga xamne ñoy ñooy mi wuyo ay murit waye rawati ci nak ñi nga xamne way wa waa kër Cheikh Mamadou mustafa bis bo xamne tam Cheikh Mamadou muntaka ayyadahu allah wa nasara feñal nako, gëddal nako jox nako wacc way ba na bépp murit bu mu mën di doon japp nañ ni do xaarte sax ñu lay wo ci bis bi kenn ku ci nekk dama yaakaar da cey wote wo ñi nga xamne sax ay julit lañu te guñ ci yoon ñu ñew mang yiw wi nga xamne mo ci nek ak xewal gi nga xamne mo ci nek bis bo xam Cheikh Mamadou Moustapha juboo naag boromam ni kep ko fi fanan suñ borom djegal la say bakkaar yakarna ken ku nek da nga wara ñeukante ngir fexé ba guddi gogui fekk la fofu waye itam nga gudd dundal ak ba itam. ba taxna na Khadim am ci taxaway bu mak bo xam ni yàgg nañ ko def ci mbolam kilifa yi nga xam ñoo jité won amna naa suyoo sëñ Moustapha Guèye moo ci mujjen ak ñi nga xam ne ñoo ko ak ñi nga xam ko Serigne Mbacke Baye Serigne Mbacke mi nga xam ni itam. moom it moo fi nekkaatan ba ci alxaaj sëriñ Mbàkke gi ngàcc mi eh, suñ borom yàlla na yokk seen leer kenn ku ci nekk dangaa jiite woon seex si waaye jé doonan koo xam ni itam dangaa nekkan eh, ñayu xare ci liggéey bi jaar ci tànk ya nga xam ni mooy tànki mag ña ña nga xam ni itam mosuñoo tàyyi mosuñoo toqi seen yitte yépp mooy yittey sëriñ bi seen bëgg-bëgg yépp mooy bëgg-bëggub sëriñ bi fexe ba lépp lu leen sëriñ bi joxoñ bala moo wàcce baaraamam ñu eggale ko def ko defin wa gëna rafet yoon woowee rek lañuy dox ba tay ji see mom dul mustafa gën ko dëgëral boole mbolam Cheikh sepp tegg leen ci loxol alxaaj Serigne Mbacke gey yalla nako yalla dolli leer ak ba ginnaw bi itam euh, Serigne bi Cheikh Mamadou Mustafa? denkat liggey bi Serigne jay gey ba keroog leen digal di wacc demb rek lañ fa deman mu gën ko feddali ni ko nañu gëna fonkat liggey bi luñ ci daan def ben nañ ko def ñaar wala ñett ba demb rek ñu degg ko yaakaar naa kon képp koo xam si yaa ngi wuyoo Ahibahil Khadim am naa suyo kilifa yu tedd yi fu fi waaye man di nekk ci biir réew mi ak bitim réew kenn ku nekk am nga ci wàll woo fi war a béy muy sas woo xam ne yàgg nañ koo sasoo muy li nga xam ne moo jëm ci nag yi ak li nga xam ne moo jëm ci xar yi ak li nga xam ne mooy ginaar yi ak ceeb bi ak addiye jooju yi nga xam ni moom lañuy fàggul daan ko baaxoo def wala xéewal yooyu nga xam ni moom la ci sëriñ bi dolli muy aw ñaraas ñu koy yóbbul Cheikh Mouhamadoul Mountakha te yaakaar naa loolu itam kenn ku nekk war na ci gën a taxaw bu baax a baax taxawaay boo xam ni dana kawe njortu ren ji dañu wax ni centenaire kon centenaire mooy eh, ginnaaw bi nga xamee ni sëriñ bi làqu na ba am téeméer at loolu nag day firndeel rek ni. mbirum sëñ bi jamono ñu nekk day gën di yokk di gën di féete kaw nam ko waxee war nag darajati taaxlu wala satan xafid wa man na minal wara xaf di xafid loolu nag noonu la feeñee ci seex yi ñi nga xam ni itam ñoo aj ci ginnaawam kenn ku ci nekk tam la nga xam ni moom la may ga nga sa maam aman la koy yokk rek moom mooy addiya la koy yokk mooy xidma la koy yokk mooy nangoo topp sëriñ bi kon nag loolu mooy suñu euh, suñu euh, li ñu ñu xamee li ñu xamee mooy loolu kon Serigne Ndiaye neena mi ngi soñnat mboolem kilifa yi kenn ku ci nek fo man di nek ak e, mo xam nga jégué mo xam nga sori nañu fexé ba addiye yi nañ ko daan defee ñu fonkat ko bu baaxa baax la ci dess nak ci dundal gi serigne Massamba Ndiaye wax nako bu baax no nek Cheikh Mamadou Moustapha done digale Cheikh bu ti nek mu magal ko dundal ko moko njabotam ak ña topp ca ginnaawam waaye loola e, moy li nga xamni moy ndigal li te kenn ku nek yakarna ni dang koy jëmele kanam waye du delu ginnaaw yalla nañ suñu borom defal tawfiq bu ko defé nak ñi ngi gën di soññaat ñi ngi gën di soññaat ci jataay yi nga xamni mom lañuy amal fi. ndax señ bi dañoo joxon digël bu ñu xësee ba duggu ca wéru tam xarit ba def tam xarit ba wéssu rek bu ñu bis wéssu bisub ziyara bi ñuy dajé fi di jang alquranul karim ni ko sëñ Massamba Ndiaye waxee di ko addiyal señ Touba Rasul waaye di dajale addiyé itam nag yeeg xar yeeg mboolem li ci aju kon ma ngi soññaan ñep yalla ñu señ borom defal tawfeex ñu fekk ko ci jamm señ borom nangul liggéey wa rahmatullahi ci kàddu yi nga xam ni moom la jëw yi nga xam ne ñoom lañ jiitu yëkkati mu jëm ci liggéey bi nu dëgmal ñun nag suñu kàddu dañ koo jàngal rek jëme ci li nga xam ni mooy tax li ñuy def mën a sotti mooy lan denc suñuy kër ak suñu poos ak ca banque ya nu génne ko indi ko liggéeyale ko sëriñ bi rikkiwaay nan gore Sering bi dal dem ci geej juroom ñetti at geen lu kenn mën tam ba ñew def njëreem at bu di liggey borom ba am tan tam tam bis ben bis nak tan ko ngir ak borom muy bis bi nak sa borom baxenu mu jox ci digal Cheikh Moussa Karim digal la nag mooy bu ku am nga ngeegal kon cheikh moussa amul labir amul yaatal amul bëgg ngir mu yépp amul ngeegal jul yépp amul ngeegal tax mu woote ko fi touba ba muy dox ci loxo sëriñ si Ahmad Mbakke Gaynde Fatma jaar loxoy sëriñ Mouhamed Mbakke ba ñëw ci loxoy si Moustapha Mouhamed Mbakke mënuy jox ndigal ci ak yaatal ak jëf ak rafetal waaye jëf ak yaatal ak rafetal wërsëg rek koy def ñun ñëpp nag sëriñ bi jox na lu ko defee koo xam ni da ngaa yaafus mbaa nga ragal rek moo fi ne waaye sëriñ bi jox na lu ko defee kon lan denc nañ ko génne def ci li sëriñ bi bëgg man de loolu mooy sama soññee ANZA TV Mbokki moy sen plateforme bi ngeen doon wër bis ni ki tey lépp lu ngeen itteewooti ñëw leen ak singal bu ngeen fi leen ko Anza TV ci information générale tagu ci manouté boole ko professionnalisme bu wër peng ay information société wàllub religion jox nañ ko àqam ba mat sëkk waye tamit politique économie dañuy amal ay direct lépp luy événement si mim réew rawat na ci région de Djourbel département de Mbacké ak Touba ANZA TV gaaw leen gaaw ngeen cloche bi su ko défé ngeen doon membre abonné di am en temps réel tous les événements Anza TV bataille sur notre page Facebook Anza TV ca Instagram nous sommes présents dans toutes les plateformes Anza TV une chaîne bi ngeen doon xaar ak sina si bëggee ay renseignements mën ngeen woté 426 30 71